lu yàlla dog neen nan fonk màggal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolom ba ganam ña fay dal te wàcci la def ak waañ bi ak lan mooy sa taxawaay bi waaw ah, maam ginnaaw ban yàlla julli ci yonent bi di sant sëriñ tubaabu wér waaw di delloo njukkal Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni bi nga xam ne moo nu tarbiyu ci yii waaw di leen wax ne lii comme yàlla dafa dogal chaque année ñu def ko ren ñu ne nan ci barkeelu war rek ndax liggéeyal sëriñ Touba moom ci weeru safar moom sawaay waay lu boo ci def benn rek boo moytul dewen nga def ci ñaar ndax man xam naa ko sax ndax daaw ci benn cin laa nekkoon ren ñaari cin laa seq kon loolu loolu loolu loolu yéeme na waaw loolu daal moom moo nekkoon loo xam ne daal waaw di wax ne yàlla na ku tedd ki di def xéewal rek saa su ne ñu ne ci ci barke borom daara. Aji Gueye dañ koo mu nekk ci koñ bi ñu doon ànd ak yaayam démb démb ak barke démb ba tey ñëw muy def tey gi safal ñun ñi di yaayam ñu teew ci di ko jàppale si barke Sëñ Touba waaw. am nañu yàlla jàppale fi mu jaaroon daaw suñu borom jaarale ko fi ndaxte am na Pastef te ñëpp a ngi ci waañ bi barke Serigne Touba koñ bi yëpp fii ba tali bu bees kenn desut yàlla nañ ko sunu borom may doole nag bañ koy def ay déwéni déwén yu bëree bëri barke sëriñ Touba mu fekk fi ñëpp kenn bañ a manqué barke Serigne Saliou Mbacke ñu dem màggali ci jàmm ñibbis si jàmm ak salaam yàlla na ko sunu borom def ki koy defit yàlla defal ko xéewal mu koy def ay déwén yu bëree bëree bëri barki Serigne Saali. noo ko taxawoo ak noo taxawoo ci wàññi. ah rafet ñooñu nañu commencé bisimilahi rahmaani mi àggale alhamdulilahi rabbil alamina yàlla yàggal ñu fi yàggal taxawaay bi yàggal leen fii yéen tamit rafetlu nañ lépp. ah yéen ñi nga xam ne ni ay tuut tànk ngeen nekk ci yoon wi yal na leen suñu borom àggaleel fa ngeen jëm ci barke Seexul Xaddim ñuy dénk yàlla suñu bopp di leen dénk eh, Muhammad salallaahu taala alayhi wa sallam di leen dénk yéen njaboot gi tamit di leen xamal na yoon wi ngeen nekk moom bu leen ci bu leen ko bu leen teggi seen tànk ci barke Seexul Xaddim lépp rafet na lépp macha allah. jàmbaar ci wàll bi. waaw maa ngi lay ñaanal yàlla ñaanal ko doomu aadama yëpp ndax maa la yar yar sa morom yal na yàlla naawtal la ak mboolemu jullit xale bu teey nga xale bu xam àddina nga aji gay nag sunu borom lañ koy bàyyi ndax xale bu mun a bokk ak la aji gay ñëpp la mun a bokkal aji gay dafa baax ndax Penda Diawara ak xarindooy jee jee moo leen tàggale Mari Diop du fay wuyoo jee Seck du fay wuyoo kon kañ jeex na tàkk yal na yàlla bàyyi ñu def ko ay ati ateer yoonu sëriñ bi nag doo ci def mukk dem ni ca kanam rek tànk kanam rek la am barki Seexul Xadiim yal na leen fi yàlla dajale waat ak mboolem yi yow nag li ngay wut ci rajo bi yal na nga ne seng ci kaw barki yonente bi ku ne xam si ñam naa ci ñuy daare mm-hmm. waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw la maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaal Mouridina ñoo ngi siyaar góor yàlla yi nekk ci waañ wi yëpp di siyaar soxna yëpp di leen jégglu bu baax a baax ci coono yi di ñaanal waa dëkk bépp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ci barke weeru sedd sell wii ñu nekk waaw di di la jégglu bu baax di leen siyaar yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii liggéey bi am na solo trop di ñaan mm, mbir mi yàlla na ko suñ borom def ay télé télé ci barkeem maam Cheikh Ibrahima Fall waaw waañ bi metti na méttiwul ndax coono yi coono yi bànneex la ndax liggéeyal Serigne tubaa moom maanaam ku koy def ak lu mu metti metti bànneex nga ciy am ndax Serigne tubaa boo ko lebalee guddi boo ko lebalee ker guddi la lay fay ndax moom dafa ñimi wut bor waaw ñi ngi siyaar baax ci loolu. waañ wi nag moom ni muy doxee ngi nii góor yàlla yee fi nekk maanaam lii benn daayira la woon. ñu demoon benn daayira ba ñëw bi ñëwee ñu toog waxtaan ci ku ci mel ni Ousseynou laa àndaloon muy yow mii ak jëwrin Assane ak jëwrin Ousmane Doy ñun ñëpp ñu ciy waxtaan daal di def ay juróom fukk juróom fukk ba jënd ay bagages muy ay xiin taxawal daayira bi tuddee ko xidmatul xaddim suñu borom di ñu dimbale di ñu dimbale ñuy dox ba dem siyaare ji Sëñ Sidi Muxtaar bañ demee mu soppi tur wi tuddee ko Nuuru Daarayni Touba Pikine tableau Thiam bii lañ ko taxawalee daayira bi nag daj nañ ci lu ne. yóbbu nañ ñu ci police da def nañ ci lu nekk waaye ñu muñ te góorgóorlu te xam ne Serigne Touba moom ku koy liggéeyal faaw ngay dajeek euh, lu lay gàllankoor waaye da ngay muñ tey góorgóorlu waaw maanaam waañ wi nag maa bi mu demee nii ba daaw ñu organiser ko ànd ceeg soxna Aji Guèye moom tamit muy jàmbaar di yaay faalub Serigne bi di jàmbaar joo xam ne daal moom kenn amut payam ànd ceeg góor yàlla yi tamit ñu ciy dox waañ wi moom gis nga ni muy doxee maanaam boo ci nekkee da nga am ñu la mere dana am ñoo xam ne danañ la naw ci sa liggéey ak saw doxin waaye yow yëpp yaa koy jël teg ko ci loxob Serigne Touba ndax Cheikh Ibrahima Fall ba ñu doon ko ko mere xool doon ko ko mere xool doon ku koy gërëm moom liggéeyal Serigne bi doo nga ko taxoon a jóg waaw kon nag ñun ca tànk yooyu Cheikh Ibrahima Fall awoon yooyu lañ fas yéenee teg suñ tànk bii di ca aw amaana nag doxe noonu dana metti torop waaye xanaa dañ ciy góorgóor di ci nam na bi di jéem waaw waaw di siyaar gaa yi nga xam ne nag mooy waa café gi ndax Cheikh Ibrahima Fall day doon na wax naan bam ba muy ñëw ci Serigne Touba dana woon yàlla suñ borom lan moo gën a gaaw a ca euh, ca ci yow mu ne ko muy joxe ak ñemetuuma mu daal di mu ne ko jox ma ma yóbbaale suñ borom jox ko loola mu indaale ko kon moo tax faw képp ku ne ab Baay Fall laa danañ lay tuumaal waaye képp ku ne ab Baay Fall laa da ngay jël ay ñam di ko jox doomu aadama yi ndax loolu moo gën a gaaw ci eggale nit ca yàlla Cheikh Ibra nee na ma lu dul Ibra Fall wasin na man Ibra Fall dégguma ko te nee na xam ne góor du ko def waaye kon ñu wax ko ko kon nan góorgóorlu ci liggéeyub Serigne Touba bi jàppante bëggante ñi ngi ñaan nag si safar bii ñu nekk yàlla nañu Serigne bi yóbbu ak jàmm ñu màggali ko jàmm ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kenn bañ a manqué di siyaar jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañu fi bàyyi woon ñu demee diwaanu Touba ñu nekk ci liggéey bi ñoom tamit ku ci mel ne jëwriñ Ousmane jëwriñ Assane ñoom ñëpp ñu nekk ci di góorgóorlu bu baax ñu ngi leen di sant baax di siyaare si Cheikh bu baax a baax nag nga xam ne mooy suñu sëriñ di ko ñaanal jàmm mu di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ñu ngi siyaar góor yàlla yëpp di la ñaanal jàmm jaajëf góor yàlla ñu ngi lay siyaare bu baax. waaw waaw waaw ñu féete wàllum café geeg waaw waaw ñoo ginnaaw bañ sant yàlla di si yonente bi ñu sant suñ suñ tubaab bu baax a baax ñu ñaanal ku tedd ki fi yàgg te wér kii suñ si Moxtaar yàlla fi yàgg te wér ñu ngi ñaan képp fu mu nekk ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi te wér ñu yàgg ñu ñaan bàcc borom Tuubaa ñu yàgg fi te wér wér lii ñu def nii yàlla nañu ko yàgg a def te ñu des fi suñu maam suñu mag yeeg suñu waajur yëpp ñu yàgg fi wax na moom lii moom mi ngi nii rek ku tedd ko moom amul morom waaw Sëñ towaa moom lépp loo ko defal rek waaw doyul bàcc seerafal billaahi lépp loo ko defal doyul waaw nañ gën a jàpp te yàlla tax rek waaw ñu ñu bàyyee bàyyee nga xam ne yoon suñu doom moom amul tànk ginnaaw ku am boo ko naree def tànk yaa yaa sa ginnaaw rek waaw bak Serigne Touba yàlla ñu Serigne Touba defal tawfeex yàlla rek ak ni ngeen séddalee café yi waaw waaw gars yi ni ñu ñëwee yéen ñoo koy moom méttuwul rek dem ba jeex rek bak Serigne Touba yoonu Serigne amul amul kii amul tànk ginnaaw tànk kanam rek bak Serigne Touba yàlla ñu yàlla bu baax a baax sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam berde ci màggal ku màggal bis bi di màggal des na la màggal fonk ko moo war ko moo ku ko deful woor ki woote màggal bamba danoo moom amun ku dul moom nañ toppi digleem te fonku màggal fépp mbooloo dajee di booloo nañ jéema booloo waxtaane màggal gàcce ganul rëy nga nekk bi xëy ba bis doon tey ngay ganti màggal loo mën rendi rendi ko berde màggal gi berde mooy mbir berde bul ne jigéen te bul ne ndaw la ak sant yàlla bawul ku am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak daw la rek a di màggal leen ma yàlla mi may ma lépp ta jooma bis bi di màggal ku sant dooleen di ñëw ta dooleen nu yàlla doog neen nan fonk màggal jóge nañ ci baas bi jóge ci waañ bi ak yooyu ñu ñëw nag ku ne màggal ku ne ne màggal ne bernde ñu ñëw nag gis fi ay xeetu bernde yu doy waar ku ci mel ni jëwriñ saalu yor wàllum organisation boobu noonu kon Saliou ñu lay laaj ah màggal gi bernde geeg yooyu waaw nan nga ko ah, euh, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax waa taw Tawfekh Production euh, di leen wax ni li ngeen liggéey am na solo lool euh, di wax ni ku gis ni xam ni maanaam sëñ Tuubaa amati ndam ndax lii yëpp ci ndamuk sëñ Tuubaa la bokk hmm, ku ni ku ni safar wax màggal Tuubaa kon lii yëpp rek sant Sëriñ Tuubaa ci màggalam gi moo tax a jóg ndax ñun ñii ñëpp daanaka ñun. kenn mënul sant sëriñ Touba maanaam sëriñ Touba liñ ko liñ ko liñ ko war a liñ ko liñ ko a santee dëgg-dëgg ñun lottu nañ ci sax kenn mënu ko waaw kon na dañuy jéem rek di jéem ni li moo waral xéewal gi maam lépp ci màggal gi euh, ci safar gi tey jii soxna Adji Gueye di ko taxawal ñu koy jàppale bu baax a baax a baax a baax nekk ci organisation bi nii nekk ci li nga xam ne tey daanaka mooy sedd yi nga xam ne daanaka ku ni safar wax ay bernde wax ay xéewal kon moo waral tey ñu féetaloo ñu wàllu naan gi muy lekk gi muy naan gi ak boisson yeeg ndox mu sedd beeg yooyu ci lañ nekk ni di bay suñu waar di ñaan suñu borom yàgg koo def ay ati at yu bare bare bare bare di ko yàgg fekkee di ko ci suñ borom suñ tuwaatam dañuy defal ay xéewal xéwal saawan baawan xéwal yu xéwal yoo xam ni daanaka bu bis bi jotatee dañuy dañ dañ dañuy am njàppatal loolu sax pour mën ci fësal suñu yéene sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax te xam ne bis yi luñ ci def rek xeeb nañ ko ndax am nañ yéene bi bu dul dara sax su suñ tubaab weesu sori na sunu mag rek aji géey mi nga xam ne tey moom moom mag la suñu lépp la rek bisam war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax jàppale ko bu baax a baax waaw ndax bisam mooy suñu bis amul différence kon daanaka bis bi dafa mel ni suñu bis la rek moo waral ñuy fësal suñu yéene ni taxaw ci bu baax jàpp ci bu baax a baax a baax a baax kon xamdan li rabbi xayramu rabbi xadrama xal bi bil ixtidaay loo su kóori bilaa ko fóori waxoon na siiru minu fi daay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu na bépp maase neex lépp maase jag ñepp maase sant yal na ñu jéego màggal ta jéego lépp di nga ko tamaana màggal yal na am jom ndax nu bari ndam lu rëy xaadim mi woote màggal jomay ñu xam ne sëriñ bi moo ne màggal gi la nee jomay ñu jàpp sëriñ bi jàpp màggal gi jàpp guwer te yeesal bërëb yi te teeru yi def ko ci màggal sëriñ bi moomoo alal yi moomoo lépp lu ni yéem nañ fonk màggal màggal la fonko nanu ko fonko ku góore fonko bis bi di màggal da jéego lépp di nga ko tamaana màggal képp ku dégg way wi ta dégg li dëgg yal na nga màggal ay yastamin allahu inda jeewali iblis id naadaytuhu bi yaa wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu borom ginnaaw bu ñu mayaate ñu fekkee weeru tedd yi nga xam ne moo di weeru safar safar di weeru yi nga xam ne moo ëmb bis bu màgg boobu nga xam ne moo di màggal tubaa fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar ngir jëm si waajtaay wi nag mboolem seen activité safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seen i ak seen i ak mboolem safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seen gox ak seen i gox-goxaan seen seen YouTube Tawfekh Production di leen si gunge lépp jëm si waajtaayub màggal ak Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu dëgmal moo xam ay reportage couverture médiatique ak mboolem activité yi nga xam ne moom ngeen def yépp Tawfekh Production nee leen si gunge ngir ànd ak yéen nu mu gën a muccee ayib ku si gën a bëgg ay leeral nag mën ngaa woote si numéro yi 77 251 04 05 77 251 04 05